ba tey ci seen scandale di jour kii di Ahmed dara nag dafa def ay révélation euh, nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. ndax téléphone ma. Mhm. naan ma gars yi dañoo daje vraiment di wax ne Samba Kory Ndiaye ginaar yi ci nenam mën na leen grand mën nag bu leen fàtte ne taskatu xabaar laa politique bi kay am na lu xewoon géej waay rek. ñu ne lii injustice politique ak sociale la nañ leen xeex non man taskatu xabaar laa man damay analyser damay wax sama xalaat. Mhm. te man dama wax lu ma gëmul. Mhm. li ma leer dafa leer ba mel ni nit yi. Mhm. gis nga yee. dama leen ne durée de vie moo jeex booy benn charte bi dafa ne dañuy ànd local ànd député suñ demee présidentielle na ku nekk lii libre nga nekk candidat. dégg bu ñu amee cinq candidats am cinq représentants ci biir bureau de vote bu ñu amee six am six représentants ci biir bureau de vote yi ak peut-être waa PDS ak ñeneen. man na képp koo xam ne damay ànd ak yow te mbir mi amul sincérité mais man damay dem toog sama kër. soo bëggee gañe da ngay liggéey liggéey boo xam ne yow daf lay leer ne su gaa yi ñëwee su gaa yi ñëwul yépp nit ñi mën nañ am ci yow yaakaar mais yow nga toog rek toog rek toog rek. toog rek ku ci nee naa di xaar naan non nañ xaar gaayen xool fu muy mujjee non nañ xaar xaar ba xam gaayen bi dina ko jàpp non nañ xaar ba xam dina bokk wala du bokk pour ma déclarer sama candidature noonu yëfu tappale la tappale am na yeewi loolu man maa ko wax et j'assume te fu ma toog naa ko wax. moo tax pëcc xool dañu waxante dëgg te te te te gis nga Ousmane Sonko. Mhm. trois initiateurs ñoom ñoo am ñoom ñoo créé yi muy taxaw Pastef ak PUR ak mhm. mais c'est pas pour rien ñoom Khalifa Sall ak ñoom ñooñu ñëpp mag ko mhm. mais moom la ñuy jox mu mujjee wax moo dirigé yàlla parce que yàlla nag li mu def képp koo xamante ni nii mhm. nangu woo ko tam da ngay sonn dañuy gis ngeen ci nguur gi naan xool leen ñu ñàkk fayda bay bëgg a dee topp booy bu ndaw bi mais la waaye yeewi daal Ahmed Aïdara yeewi nga nekkoon ay dara Euh, euh, sen président Ousmane Sonko mu sel mi motax nga dégg maire nga nek député génn ci li nga ni bayil wa yewi ak wa ex Pastef ci nga bok man sama waxtu du ci beuri ñom rek sen bir sama wu ci luma ci wax luma ci ngang Ahmed ay dara yow yow ak ñom yena xam fu way xam dem sama wu ci bu le dañu gis na nga commencer changer veste veste bi xam lu ko wóor na ma ni li président bu li mu li mu li mu nekk fee naan je salue le président de la république mooy inauguration berte ba yaakaar naa moo tax ñu sulliwaat lii manipuler Ahmed Aidara ex-Pastef nga bokk yeewi nga bokk sama yoon ñëw ci du ma ci wax yéen nag ji seetaan am ngeen droit wax seen xalaat mu li mu expliqué nii yéen laay déglu li ngeen ci wax man moom sama yoon ñëw ci waxuma ci sax waaye ex Pastef moom merci rek. jadi jadi jooju ndaw yoon liggéey yi fii waay lu ci ñaax lu tuula amul lu ci di doon yaay